Members of the former government of the Yaya James APRC party have denounced ownership of a banner portraying their support for a five-year transitional mandate for the President uh, Adama Barrow. The video and uh, pictorial circulation of the banner appeared in social media on the very moment of the mass protest of a counter group to the calling on the president to step down after three years. The party's deputy spokesperson, Duduja, said in a statement that the uh, portrayal is fake, fraudulent, and propaganda, an illegal representation of the party. The APRC is currently uh, preoccupied campaign for a return of its exiled political uh, father who lost grip of the country's leadership to the historic coalition that brought in current President Adam Barrow. Yeah, is currently homesick as uh, assisted or attested in a leaked audio message to the executive of the APRC in which he communicated plans to come back as a citizen of the country. Hmm. Interesting one. Ehm, APRC eh, <laughs> li nga xamante ne mooy wane seen taxawaay wala sax li nga xamante ne mooy ñàkk ànd ak li nga xamante ne mooy ci eh, benn vidéo di génn di wane ñoom ñu ngi ànd ak li nga xamante ne mooy five years protect back yooyu ñu ngi koo ñaawlu eh, wax ne daal ñoom ñu ngee daxalu seen bopp ànduñ ci ak yooyu jamono ji ñoom ñu ngee focus li nga xamante ne mooy seen si seen plan si waaye daal li nga xamante ne mooy li am ñoom daal dafa mu ngee wane ne daal nekkul ci ñoom la jógee ci gàttal waaw mu nekk lu nga xam ne ñun ñëpp démb ñu ko gisee segam ñu nga fa woon amoon nañ ci gis-gis jàppoon nañ ne euh, ñoom tamit dañ ci am taxawaay waaye li ci teeyoon xel rek mooy buñ fàttaliku ci ay weer ci ginnaaw bi nga xamee ne ñoom ñu ngi doon def press conference euh, Fa Bakary wane woon na taxawaayu APRC ci three years five years wane woon na ne ñoom ref li lañ dañ toog di xoolaan mm-hmm. buñ demee ba yegg nag ci fi nga xam ne jot na pour ñoom ñi wane seen bopp dinañ wax ñoom fan lan féete bu fekkee démb dañ gis baana bu nga xam ne APRC moo fa nekk gis ko ci vidéo yi mu nekk ci social media bi waaye balaa jant bi di sow ñu gis ñoom ñi génne bataaxal buy firndeel wane ne ñoom làmbuñ laaluñ takkuñ ci lu jëm ci loola mm. yëf yu àndul ak li nga xam ne moom moo ne kon ñoom seen dogal la kon loolu jàpp nañ ne xëj na ñi bokk ci five years tamit ñi jàpp ne waa APRC génne nañ weddi ne ñooña nekkuñ ñoom ñu yebal nekkuñ seen i ndaw ñooñu tamit ñoo mën a indi seede wane ne ñoom bu dee APRC lañ bokk wala baana boobu ñu defoon APRC lan mooy mandarga bi tax ñi def ko yëpp dina leex waaye ñun APRC comme seen député spokesperson bi moo wax mm. mun na noo jàpp ci li mu wax ne ñoom nekkul exécutif li nga xam ne moom moo nekk order wala ñoom yëguñ ko. exactly jul de lan mooy sa réaction ci loolu um, of course gis nañ ñenn si peut political party ñu fa nekkoon waaye ñooñu peut être xam xam nga leen niñ bokk ci coalition bi waaye ñu mel ni. non man gis naa sax ñu nga xam ne ay mm, supporter APRC lañ. ñu ngi woon. exactly ñu xam ne xam naa leen wane nañ ne ñoom APRC lañ support. Mm-hmm. waaye ñu ngi fa woon. Mm-hmm. waaye nag baana. ñu ko yëkkati rek dafay fekk ne exécutif bi ñoo war a jël seen doole. Mm-hmm. jël seen taxawaay wane loolu. nag yes jul de ban mooy sa ah lii daal um, daanaka hmm. APRC ñoom dañ génn ñu ne waa baana Banabé is not from theirs and they disassociate themselves from the uh, five years uh, uh, solidarity march bi five years and peace building ñoom ñu ngi wax ne te gis nañ ne fii sax in recently sa in a video mu nekk former president Yahya Jammeh ku nekk exile di wax ne waaw ñoom parti bi bëgguñu form any alliance with any other political party so all these things shows ne waaye soo xoolee tamit the the solidarity march sorry ba dañ ko fi amoon te moom ne they are not political thing in fact mom dafa mention ne outright they are not doing a favor to President Adama Barrow they are this thing is to make sure ne like they safeguard and protect the constitution, which, okay. you know, the constitution states five years. That is what they are out for, but not in doing a favor for President Adam They were just defending the constitution. Ex exactly. But Legidal, APRC, they are not part of it. You cannot say that they are part of it. But this is a national issue, just like the uh, Soriba said. They are not there for any political party or for the president. So kii comme maam ji like APRC political supporter but I think like all of them hence it is not a political thing they are just there to to make sure that they defend okay. the constitution. all right there you go By uh, uh, bàyyi li nga Moi, ne mooy loolu foofu Uh, uh Lenin will, of course, now talk about the OIC, uh, you know, uh, luncheon over the weekend because the president, Adam Barrow, on Saturday, presided over the opening of, the, uh, of an international conference center building which will host the 2022 Organization of Islamic Cooperation ahead uh, of the uh, State Summit in Banjul. The conference center is named as the uh, Sir Dauda Karabakh Javaras International Conference Center in memory of the country's founding president, Sir Dauda Karabakh Javara. It was constructed through a $50 uh, million Chinese government grant. President Barrow said bilaterally his government will continue to work with the Chinese government and remain supportive to the One China policy. We opted to name this conference center after Sir Dauda Karaba Jawara as a tribute to him. He said the construction of the conference center was a prioritized project as it is a, a prerequisite um, requisite for hosting the 2022 OSCE Heads of State Summit and as a tourist Attraction Center as enshrined in his government's national development plan. The conference center is a state-of-the-art facility consisting of a plenary hall with seating capacity of 1,031 uh, for adjoining conference halls, VIP rooms, bilateral rooms, press room, meeting rooms, offices, banquet halls, and entertainment spaces with a beautiful fauna and sea the idea for Gambia to host the world's second largest intergovernmental organization after the United Nations last year was first proposed by former President Yahya Jammeh which failed to materialize under the pres under President Adam Barrow. yes uh, bii moom du ma ci sori yaa ngi fa woon maa mu ngi fa di doo uh, te gis ngeen yëf yi ni mu demee ci gàttal rek lan mooy sa li nga xamante ne réaction finally launch nañ ko uh, you know 2022 la ñoo utali pour summit bi ci Banjul ak yooyu lan mooy si seen eh, gis-gis ci li nga xamante mooy ci event bi nu mu demee Saturday. waaw lu ñu doon xaara la ndax li tax ñu ko doon xaar gis nañ ni njiitu réew mi fi nekkoon wala nguuru jàmme mhm. ñoom ñoo sumboon liggéey bi. amoon yéene pour taxaw taxawaay bu naka la ñuy def ba sumba dugg ci liggéeyu samp OIC euh, conférence bi euh, daloo li nga xam ne moom moo nekk dalal gan ñi waroon na def OIC bi 2019 bi nga xam ne moom la ñu génn waaye gis nañ ne loolu yëpp jaam bi ak mébétam yàlla ak dogalam gis nañ ne loolu sottiwul ba nguur gu ees gi nguuru aadama Barrow ñoom ñoo samp teg xeer bu njëkk bi ñoom ñoo ko daloo ci samedi bi te ñu ngi yaakaar ne 2021 tamit xamuñ 2022 euh, la summit bi di am euh, balaa loolu tamit leneen li ñëw suñ borom moom moo ko xam waaye liñ ci jàpp rek mooy li am ci samedi bi ñëpp ñu ngi koy rafetlu euh, taxawaay bi nga xam ne moom lañ daloo bërëb bi waaye ñu bëri luñ ci wax rek mooy bu mu weesoo mooy xam nañ ni summit yu mel noonu benn fan ñaar lay doon gaa dina am koom bu rëy bu muy indi réew mi ci liñ ciy xaar waaye lii fii ak ñaari at ci kanam bu dee dañ ko paree tëj lan mooy njëriñ li ak lan mooy solo si nga xam ne moo tax lii ñi am yaakaar ak njort ne lu war a indi mi koom-koom la. ok am naa loolu nañ ko euh, yaatal de lan mooy sa sa si li nga xamante ne mooy ci launching bi ñu jël euh, conference center bi neem ko after euh, one of the founding fathers of the of the land di leen sa Dawda a Jawara ñu bari rafetlu ko lan mooy sa sa gis-gis. ak tamit comme maam ni ko waxee. you know ñeneen ñi tamit am nañu ko gisee waaye information ministre ni ko waxee ne jàpp ne daal la ñuy teel use li nga xamante ne mooy place bi because pour mun a amal tamit income réew mi soo loolu mm. tamit wala nguur gi I don't know waaye mu ngi noonu daal la mooy sa sa sa jàngat ci ci ci event bi ci luncheon bi mm-hmm. comme Mam Jibi nu ko waxee rek the conference center most Gambians welcome the move by the Gambia's president um, Adama Barrow because lii dañ believe ne most of them are of the belief that this will generate income for the government, Tedululu Sardina create job opportunities for Gambians. Mm -hmm. So uh, the only thing that do hamne dafa um, and the divergent views is with the name because gisnanya Sibir it's having Gambia International Conference Center while and Sibir nga dugadangage Sadauda ba Jawara International Conference Center. So many Gambians took to social media di wahne wow this thing it's it's hamga dafa am conflicting stuff because there are two names uh, in the conference center. Why that is their views because the most important thing here is that you know, just like what they said, many people are of the belief that this will create job opportunities for Gambians, which all Gambians welcome, okay. and of course uh, generate revenue for the government in turn. Why hosting of the summit in 2022, like Mam Jibi Numko Wahere, Lolo Tami, like, dinañ time dina uh, time will Ta tell time will because tell uh, you know there, there, are a lot of things involved comme nuñ here waxee woon saturday bi rek nekkul conference center bi jeex na rega host but there are a lot of things in terms of infrastructure that yeah. needs to be met first Absolutely. before the hosting of the summit exactly so that's it and um, we'll now move to the uh, final story and of course uh, talk about uh, yeah, something interesting because Guinea-Bissau's president-elect Omaru Sisoko Mbalo is due to arrive in Banjul later for a day long, just a week following his victory in the presidential election. He will be received at the airport by his Gambian counterpart, President Adam Barrow. The president in Banjul said in a statement that the coming of Mbalo will go a long way in strengthening bilateral relations between Bissau and Banjul. The former prime minister and opposition leader Mbalo won the uh, Guinea-Bissau presidential election by 53.55% uh, of the votes. His rival, Domingo uh, Samos Pereira, head of the country's ruling uh, PEG, I don't know how would I call this, PIGC party uh, took 46.5% in the runoff. Born in the capital city, Bissau, Mbalo is a specialist in social and political science. In October, Prime Minister uh, um, Gomez of the uh, page um, accused him of plotting a coup, charges Mbalo denied. Mm -hmm. That's the name of the party, uh, PAIG, I think. Uh, is it called? I don't know how in Bissau they would call that. It's a, it's a long one, though, not like I was here. But anyway, just quickly, um, well, Mbalo, president-elect, a uh, few weeks or so, I say just barely a month or so buñ buñ winee élection si uh, mu war a ñëw Banjul uh, meet uh, président Barrow Euh, tey la ci ci li nga xamante ne mooy la war a agsi fii ci Banjul euh, lan mooy seen gis-gis diggante euh, Banjul ak Bissau wala Bissau ak Gambia du tey relationship bi yàgg na gis ne suñ président yi dañ fay dem ñoom tamit seen bos mi ñëw waaye nag kii gannaaw buñ ko tànnee you know foog naa waatagut sax mu bugg a ñëw waxtaan ak président Barrow lan mooy sa sa sa ak seen gis-gis ci loolu. kuy waaw am am yaakaar bu rafet ne jàpp na ne ñaari réew yi kóllëre moo nekk seen diggante te euh, dëkkandoor dafa yeey ci jàpp ne euh, lépp lu ci am rek mooy na rafet. Mhm. te loolu mooy gis-gis bi ñu am ci. yaakaar ne moom tey ni mu wiinee nekk président bi nga xam ne moom lañ tabb wala tànn ko mu nekk président yi Guinée Bissau ñëwee ci biir réew mi rek loolu defe naa ne du lu ees te ñaari réew yi séq nañ ko te ECOWAS bi nga xam ne bokk nañ ko rek bu dee jege la Gambia bokk nañ ci ñi gën a yeey ci jege ñaale Guinée Bissau mm-hmm. kon bu fi ñëwee ñu ngi koy euh, dalal rek di yaakaar ne li tax mu ñëw fi tamit dina fi jëlee solo si li tax mu ñëw fi te bu fiy jógee dina yóbbu réewam tamit li tax bu ñëwee ci Gambia mu am leneen lu muy yokk ci taxawaayam ak ni mu leen war a jiitee ak gis-gis bi nga xam ne am na ko bañ ko doyloo mu ñëw war a seet si nemmeeku ki nga xam ne mooy suñu njiitu réew